وقت في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل لو حرف الشرط لا في مضي تي مار تان بو باسي فعل مار it niki law law jaa zeyd la akramtuhu wa yaqillu dana néew ilaa'uha fi méngale ko mustaqbalan fi'lu mudaari'u laakin waaye qubila nangu nañu ko niki walaw tara walaw tara id yatawaffa alladina kafaru dana am waaye li luy néew la law ra'ayta ndax xartu charte xarfu charte la ci lu passé lu passé nag kon feelu maat la doon doon waaye jëmale ko mustaqbal loo xam ne dikkagul ni ki law tara id wuqifu ala naar loolu dana mën a am waaye lu ko waral lu ko daganal yàlla mustaqbal ak maadi yëpp a yem fi moom li dikkagul moom li dikk ba pare ñoo yem ci ñoom mën na koo lu ci ne mën na ko def place u morom mu mu jël mu daare omi booleeg law ni ki mu mën a xam ne mën na waxit law raayta te fekk dikkagul woon lu ni mel yàlla amul mustaqbal ak maadi maanaam ndax gisam dégg na mustaqbal maadi xaalu yëpp moo tax mu ni laakin waaye qubila nangu nañu ko dana di am wa hiya moom law nag fil ixtisaasi ci jagoo gi mu jagoo bil fiili ci feel ka in moog ina yem warul dugg ci jumlay lisim laakin na law waaye daf fekk law nag yen tàng dana bañ a ànd ak feel ànd ak jumlay lisim yoo xam ne an na da ca dugg moo tax mu ne laakin na law waaye law nag an na an na qad taqtarinu biha muy dugg ci lisim kon ni ki law an na zaydan faala kada te xam ne law feel la waroon jagoo law jaa zaydun waaye mu ni teewul nag feel la jagoo waaye léeg-léeg law ànd ak moom ànd na ànd ak moom te ànd na ci lisim lay dugg que ni law ànd na zaydan jaa qad taqtarin wa in mudaari'un talaaha surifa ila al mudiyi naxwu law yafi kafa nee na su ko feelu mudaari'u toppee comme moom sartam ci tàng bu passé la daan dem wa in mudaari'un su fekkee mudaari'u talaaha topp na ci law surifa ñu wëlbati maanaama ilal muddi yi jëm ci tàng bu passé ni ki ni ki law yëfi su fekkoon ni dana doy kafa kon doy na law yëfi mu daare ola maanaa law wafa la rek law wafa su fekkoon doy na nga xam ne wafa lu passé la yëfi nag luy dikk la wafa mat na yëfi dana mat nee na su ci mu daare o toppee kon it maanaam lu passé lay yor kon law yëfi moog law wafa ñooy war a وإلى مدين اسم قبيلة بدكون مدين أيوة يبكون جوجو ما أنا بكو كون فعل مضارع دنا نك ينتang دنا نكو جفو دكو تجيب لكو فعل ما waaye nag loolu lu koy def ñaare xanaa xikaayatu xaali almaadiya dégg ni ki xataa yaqulu rasulu wa zulzilu loolu lu passé la doon nettali xataa yaqulu rasulu te waxul xataa qaala rasulu awa law yasmacuuna doonte ñu ngi dégg ba tey noonu law yasmacuuna kama samictu kalaamahum law yasmacuuna ay law samicu te nga ma ngi wax law yasmacuuna te loolu lu muy nettali la lu passé an ruhbaani madian kon nag yasmacuuna jooju bi maanaa fi'lu maat la rek mooy li mu nekk law yëfii kafa maanaa law samicu kalaamahum kama samictu amma amma kam amma walaw laa walaw ma يتباب أما أما حرف شرط لولا حرف الامتناع من نكر حرف تعظيم لو, لو ما حرف تعظيم أما كمهما يكون من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا أما كمهما يكون من شيء فهو شرط مستقل أما زيد فذاهب أما جدون موي شرط سوسوتسا li ci des lépp jawaab la dégg moo tax mu ni amaa luy maanaam mu ngi ci ci maanaam mu ngi mel ni bone max maa yekku min shay'in max maa yekku lu mën am min shay'in ci lu mu mën a doon day ñu ne ah kooku sart si sotti na sart bu sottee ñu ne la ah di la déglu soo ne max maa yekku min shay'in lu mën a am ci lëf ñu ne waaw nga ne fa zaydun zaahibun soo ne amma mel na na da nga ne lu mën a xew fa zaydun zaahibun loolu moo doon cosaan waaye comme amma xaraf la fa saydun faaji xaraf la du ñu xëpp xaraf si sa léeg xaraf ñu boox faaji nag ba mu dem ci zaahibun ma ca topp ci xabar ja looloo tax mu ànd ak xabar ja waaye zaydun moo doon mubtada ci la faaji waroon dugg nag ndax mooy sadru jawaab bi mooy njëlbeenu jawaab kon faaji dugg ci jawaabu amma ci sadru bi la waroon amma fa zaydun zaahibun amma lu mën a xew ñu ne waaw nga ne fa zaydun zaahibun saydu ma saydu moom day dem waaye kon amma di xaraf susag faaji loolu la ñuy bañ ñu jël faaga yóbbu ko ci xabaru zayd kon moom ci digg jawaabi amma la ne léegi de ndax jawaabu amma mubtada xabar la yani amma zaydun fa zaahibun looloo illa ja waaye nag place am moo doon fa saydun zahib soo ne su fekkoon ne li mu yoral maanaa nga andi ndax maa yekku min shay in nga wax te loolu la maanaam doon bon kay faagi place am lay dugg soo noon max maa yekku min shay in fa saydun zahib lu mën a xew nag ñu ne waaw ngam saydu moom day def waaye boo indee amma mi nga xam ne xaraf la nag bul ko sësale faagi nga buux ko ba mu dem ci xabaru zayd loolu moo indi amma zaydun fa zahib mu ne nag wasaa un saa li ujib ulifa miin nañu ko wujuban ñuy lu war cig war li tilwi tilwi ha ñeel la topp ca la topp ca amma dégg nga kon mooy dañuy bañ a fab faagu jawaab bi si sa léegi amma mi nga xam ne sart su sotti la jawaab rek la laaj te faagit ci jël benn jawaab la daan bañ loolu la ñuy bañ moo tax li nga jëkk indi mu topp ca ca la faagay topp amuñu ban ak ban la nag su dee mubtada amma zaydun fa zaahibun su fekkee mafoolu bihi la ba tey fa ammal yatima fala taqhar seetuloo te kat mooy amma lu mën a xew fala taqharil yatiima dégguloo xam nga loolu mooy maanaa bi amma lu mën am nee naa la sart su mat sëkk la jawaab rek a des lu mën am daal bul not fala taqharil miskin waaye nag kon amma si sëkk fa bu ñu nee amma fala taqharil yatiim loolu budul tarkibu alquran moom tawqiifi yàlla noonu la bindoo waaye kon maanaa ma ma fool bi sës ci boog faaga door a ñëw kon it muy jàmm su wala bu fekkee zarafa fa ne sax moom boo ci boo taqalee zaraf sa sali ci door a indi faagaat ah xolam sedd nga ni fa amal yow ma fadrib zaydan gis nga ko te yow ma zaraf rek la ba tey moo tax mu ne wa faa faaga wujib ulifa miin nañu ko li tilwi tilwi haa muy la topp ca la topp ci ama wujooban faw la topp mu topp la topp ca la topp ci ama lay àndal ni ki al yatiima moo topp ci amma la taqhar moo ca topp faaga dem ca la topp ci la topp ci amma fa amma al yatiima fa la taqhar illa bi wax nañu ko mooy bañ sësale araf ak araf wa xazafu wa xazfu zil faa qalla fi nasrin xazafu faa googu nag nga xam ne mooy dikk ci jawaabu amma qalla néew na bu lo- bu dul lor way xanaa fi nasrin ci way ci ci ci nasar kooku néew na de amma bu dee ci way nag bu dee ci ci nasr néew na kama warada fi lxadis amma baadu ma baalu rijalin yashtarituuna shurutan laysat fi kitabillah te fama baalu faaga dikkul foofu te loolu du way xadis la amma baadu fama baalu rijalin loolu moo doon cosaanu jëfandiku waaye xadis boobu nag ña ko riwaaya andiwuñu faagi dañu ne amma baadu ma baalu rijalin amma ci way nag bare na ci fa amma alqitaalu laa qitaala ladaykum walakinna sayran fi iraadi almawakib andi nga béytoo fa amma alqitaalu au lieu mu ne fa laa qitaala ladaykum waaye way wi moom loru way dana tax lu mel noonu di ci am fa loolu defal ndànk ba mu àgg ca mu ne waaye loolu ba muy néew wa xadfu zilqa qalla fi nasrin ah ida lam yakun ndegam nekkul qawlun baatu qawlu luñ ca xare ak luñ ca xare ñu diga ñu wacc ñu xadaf ko wacc ko ñu xadaf ko ma aha booleeg faaga su dee loolu kon bare na loolu nag mooy misaalu fa amma alladina byaddat wujuhuhum akafartum fa amma alladina swaddat wujuhuhum akafartum baada imanikum akafartum maanaa xawlu la ñu xadaf booleeg faaga mel na dafa ni fa yuqaalu lahum yawma alqiyama amma alladina iswaddat wujuhuhum maanaam fa yuqaalu lahum akafartum baada imanikum di leen yedd ñu ñu xasaf xawlu fa yuqaalu jooju xare ci xawlu nee na bu boobaa moom bare na ida lam yakku nee na xasaf faa gi dina néew bu dul ci way bu dee nasr nasru mooy yosar ida lam yakku waaye ba muy néew ida lam yakku su nekkul xawlun baatu xawlu maanaam ak luñ ca xare daal قد نبذ ñu di ko wacc maanaam ñu di ko xadaf maaha booleeg faagal nit ñu ko xadafe ci fa yuqaalu lahum fi qawlihi taala ama alladina swaddat wujuhum akafartu maanaam fa yuqaalu lahum akafartu mu dem ci li mu tarjama woon booleeg amma lawla ak lawma lawla wa lawma yalzamaani libtida yamtinaan bi wujudin aqada lawla ak lawma yalzamaani dañuy taqoo libtidaa tàmbale maanaam mubtada moo di war topp ci ñoom ida aqada su fekkee dañoo fas maanaam suñu tegtalee imtinaaul jawaab li wujubi taalihi su fekkee ni eh, da nga ni lawla zaydun la am la akramtuka dégg nga ñu xam ni kon imtinaaul jawaab ikram bi amut li wujudi ma qablahu li wujudi zayd ci misaal mi kooku comme loolu la kon mubtada cay topp nga ni lawla zaydun la akramtuka mubtada rek cay topp fi'l du ci topp mu ni nag wa bihima tam taxdida mis wa halla ala alla ala wa awliyan hal fi'l nañ ko méngale fi'l nag bu fekkee ni ci taxdid la du dëgg wa bi wa mis ràññil taxdida ak ñaaxe bihima ci lawla ak lawma te kon ci fi'l lay sës kon wa awliyan hal fi'l la kon l'ibtidaa dootu ca topp dégg nga naka noonu ni ki tey boo ne law laa darabta zaydan lu dëgg wala law maa faaltahu law maa darabtahu ak law laa darabtahu kooku ñaax la waaye téewal nga ko doo lay firi kon fee la cay topp bu bu fekkee taxdiid la moo tax mu ne wamis ràññil taxdiida ak ñaaxe bi himaa ci ñoom maanaam andi ko muy tegtale taxdiid soññi nit pour mu def dara moog hallaa itam hallaa darabta saydan wala allaa itam allaa darabta saydan waay wala alaa rek waaw alaa darabta saydan yooyu yëpp danañu ko def taxdiid law laag law maa ba mu jëkkoon a wax ak hallaa mii ak allaa ak alaa bi taxfiif yooyu juróom bu boobaa wa awliyan haa méngale leen ñoom ñëpp comme taxdiid la al fi'la fi'l kon fi'l la ciy topp waaw mu nga teewoon foñ kul taifatun ab groupe min kulli firqatin nit ñu nekk dafa waroon am groupe bu ca dem bu ñu wootee xare waaye àndandoo ñëpp ñëpp dem ba bu yeneen toogee alxuraan ji wàcc wala yemuy waxtaane du am ñu ko déglu loolu jaaduwul na mbooloo bu ne famille bu ne mën na am groupe bu ca jógee àndandoo ñu dem ah ñu ca des toog li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmahum ida rajau ilayhim nee wa awliyan hal fi'la wa in yali wa qad yaliha mën na topp ci yooyu nag nee na fi'l la cay topp su dee jëriñ taxdiid waaye nag mën na ca topp ismun li ismun dégg nga ulliqa joo xam ne dañu ko aj bi fi'lin ci fi'l mudmarin ju ñu xadaf mudmar buñ ko idmar buñ ko waxee ci fi'l xadaf rek la kat waxte naag buñ ko waxee ci lisim kon daf damir la waaye idmar ci fi'l maanaam bi fi'lin mahdufin aw ñu aj ko ca aw bi zahirin muaxarin wala ñu aj ko ci fiil ju feeñ joo xam dañu ko mujje dégg nga de soo ne masalan waaw bala ñoo def baytu ñu nga jëkke mètre ba yàgg lool dégg nga aydan lawla zaydan darabtahu du dëgg maanaa kon fiil bi ñu xadaf la aju maanaa lawla darabta zaydan ñu xadaf ko kooku ci listiraal boo nee lawla zaydan darabtahu kon lawla darabta zaydan kon fiil bi ñu xadaf jaa ko ca la ca la duggoon kon na ngi ci jëfu cosaanam te mooy dugg ci fiil loolu mooy bi fiilin mudmarin ulliqa bi fiilin mudmarin lawlaa darabta saydan nga ni lawlaa saydan darabtahu kon darabta ji ko nasa ji ji ji lawlaa duggoon da nga ko xadaf aw bi zahirin mu axarin wala nga aj ko ci fiil ju ñu mujj ni ki su fekkee da nga ni lawlaa saydan akramta kon akramta yorul lu koy listixaal damir nekku ci kon akramta moo nasab waaye dañ ko mujj be bu amaa lawlaa saydan akramtahu kon léegi fiil ju ñu xadaf la soo nee lawlaa saydan akramta fiil ju ñu mujj la mooy lawlaa akramta saydan kooku du listiqaal du daal loolu mooy waqad yaliha mën na ca topp ismun fiil lisim joo xam ni ulliqa dañu ko aj bi fiilin mudmarin ci fiil ju ñu xadaf niki law lawlaa zaydan akramtahu wala bi zahirin muaxarin niki boo nee lawlaa zaydan akramta rek maanaa lawlaa akramta zaydan waxal nag bayt yi neew wal man dama dul gis te yooyu du waxoo foofu xalaat taqalaa léegi taqaddumu lisim la du feen te xalaat tax de teewoon taqaddum teewoon ngeen avancé wal qulubu te fekk xol yi si xaaxun lu wér la kooku moo di sataru ñaare bu njëkk bi wax ko al an al ana baada lajajati talxunani halla taqaddumu wal qulubu si xaahu foofu topp nañu ci feel topp na ci xalat taqaddum feela ci lisima ci topp laa ne taqaddumu lisim la mubtada la xalat taqaddumu maanaa teewoon ngeen jiite xalaata taqaddamu wal qulubu te fekk xol yi si xaaxun di way wér al ah ta uddoona aqran aqran nii bi afdala majdikum naam waxal lawlal kamiyul muqanna maanaam lawla taatuuna bil kamiyi te mooy jàmbaar gi almutakammi bi silaaxihi almuqannau waxaa ne ma nga muuroo yëre xarem waxaa ne weña ma nga mu dem ci beneen bunt boo xam ne naxu yoon yi ñoo ko defoon limtixaani taalib bu ca bu jëkk loolu ci istimaal yu jëkk a jëkk suñu dee jàngal taalibe naxu ay bunti bunt ba mu war a agsi ci fii ñu di ko def nag nattu di ko jox lu mel ne nii muy bëgg a wax ci bunt bi lëdi ni ko axbir jox ko benn jumla ni ko xabaaral ak lëdi ñeel nangam ji mu jóge ci nangam ji wala ñu maanaam darabtu zaydan tey ñu dikk ni ko nangama xabaaral ak lëdi ci taawu darab tugi waaye nag su ko defee nga defe ni ax bu ñu ko ne axbir ani taa'i billadi dégg nga maanaam axbir billadi ani taa'i bu ko defee nga daal di defee ni ladi mooy doon xabar fekk déedéet fi ñu waroon a def baa foofu la ñuy def an fi ñu waroon a def an foofu la ñuy def baa dik wax ko taalibe noonu mel naka ku ko ko narul leeralal na mu ko war a defe ñu ne la axbir boo ne darabtu zaydan ñu ne la axbir axbir billadi an zaydin nga defee ni ladi mooy doon xabar déedéet maanaahu axbir bi zaydin an illadi toujours noonu la ñu koy waxe maa qiila lu ñu la ni axbir anhu maa qiila lu ñu ni axbir anhu billadi loola kat bul defee ni mooy doon mubtada déedéet loola xabarun la ani alladi jóge ci ladi moo xam ne xabaruhu dégg nga maa qiila anhu maa qiila axbir anhu billadi xabar ani alladi mubtada an qablu istaqar maa qiila lu ñu la ni axbir anhu wutal ko xabar axbir anhu moo doon wutal ko xabar billadi ak ladi bul defe ni ladi jam mooy doon xabar de xabar axbir an zaydin billadi zahiram bu ko ko jàppee bul defee ni ladi ngay def xabar bal loolee ñu la ni axbir anhu xabarun la moom ani ladi de lu ñu la ni axbir anhu daf dañu la ni axbir bihi de waaye ne lu ñu la ni axbir bihi dañu la ni axbir anhu kooku moom mu labbas la da waaye nag noonu la ñu ko daan nattoo taalibe ba xam fu ñaawam toll ñu ne ko axbir billadi an zaydin min qawlika darabtu zaydan axbir billadi an zaydan min qawlika darabtu zaydan bul daal di ni da ngay wax ni alladi ngay andi def ko mubtada nga ne di alladi darabtuhu zaydu su ko defee maa qiila lu ñu la ni axbir anhu billadi loola mooy doon xabar an alladi jële ci ladi moo xam ni istaqarra qablu mubtada an doon mubtada wa ma siwaahu la dul loolee ñu la ni axbir anhu billadi wa ma siwaahu ma la dul ladi ja ak la ñu la ni axbir anhu billadi la ca des lépp fa wasit wu def ko ca digg ba sila tan muy sila muy sila mawsul ndax lazi mawsul lay doon su ko defee sila fokk mu am aid itam kon aiduha la cay nar a doon aid xalafu muati takmilati moo remplacé li joxe matu jumla ji loola lan la mooy xabaru mubtada mi lu dégg su ko defee nga ni alladi darabtuhu zaydun léegi andi nga alladi dégg nga andi nga li ñu doon axbir anhu billadi nga ni maa bañ uxbiru billadi uxbiru anhu billadi nga nga nga bañ nga daal di def loola moom xabar ndax moo la ni lu ñu la ko wax rek xabarun xabar la kat ani alladi waaye du jegee ni alladi mooy doon xabar anhu nga daal di ni kon alladi darabtuhu zaydun mu ni nag léegi rafaa nga zaydun mooy xabar andi nga alladi ci bopp jumla lu dul yooyu yaar def ko ca digg ba mooy sila nga ni alladi darabtuhu ji kon mooy sila lool mu ni nag sila seet ayit ba ca ne moo remplacé li joxe matuk jumla ji te mooy xabar ji moo ko remplacé ci liraabam ndax darabtu saydan da ngaa nasaboon sayd kon lu ko remplacé ci liraab damiru nasab lay doon ndax a aayit ji damir lay doon darabtuhu haagi barabu lan la ne ci foofu du nasab aywa nasab ga sayd ca darabtu saydan ja nasab ga mu yoroon moom la ko damir jooju remplacé hakada alladi darabtuhu zaydan zaydun moom la ni aayit ja ci jumla ja jumla ji nga xam ni moo nekk ci digg bi di sila gannaaw boo andee ladi gannaaw boo rafaa la ñu la ni axbir anhu bi ladi def ko xabar kon la dul yooyu yaar nag mooy doon sila si ci digg bi sila si ladi aayit ja ca ne moo rempla moo remplacé loolu ci liraabam ba mu nekkee woon naxwu alladi darabtuhu zaydun fada darabtu zaydan kaana fadril maxada ni ki tey da ngay daal di rek alladi darabtuhu zaydun fada tarkib bii nga wax tey te mooy alladi darabtuhu zaydun kaana nekkoon na bu njëkk di darabtu zaydan léegi darabtu zaydan rek dégg nga darabtu zaydan la doonoon ñu ne la xabaaral ci zaydan an alladi kon da ngay wax alladi darabtuhu zaydun darabtuhu zaydan du dañ ko nasab fii aywa kon li ko remplacé moo ko ci liraab la ko remplacé xalafu muati takmilati fi irabihi nga nga nasab ko nga ne ladi darabtuhu du dëgg zaydun moom da nga koy rafa ka dégg nga fadri xamal almaxada jàppukaay bi wa billadayni walladina wallati axbir muraaciyan wifaaqal musbati nee na mawsul mi nu mu mën a tasarrufe noo jëfandikoo bi nii la toujours aiduha xalafu muati takmila waaye da nga sàmmonte ca aid ja nag mawsul ba nga teg benn góor laam ñaar laam mbooloom jigéen laam moom la ni wa axbir xabaareel billadayni waaye kat anil ladayni lay doon baa boo gis ci bunt bi maanaam an an joo fi gis maanaam baa de wa axbir billadayni ay anil ladayni de ndax la ladaani mooy doon mubtada wa billadayni wa axbir xabaareel billadayni ak ladina ak lati muraayan ngay sàmmoonteeg wifaaqal musbati aayit ju dëppoog la nga saxal bu dee ladaani nga indi fexeel ba aayit ja nay huma bu dee ladina fexeel ba nay hum ni ki tey al ci boo nee tey waaw soo nee darabtu zayd zaydina darabtu zaydina soo defee soo waxee loolu da nga naan alladina darabtuhum azzayduuna lu dëgg kon nag moo ko remplacé ci liraab te it dëppoo naag musbat ba ndax alladina mbooloo la hum mbooloo la ba tey nanu waxoon ca misaal mu jëkk ma moo ko remplacé ci liraab ah darabtu zaydina zaydina dañ ko nasaboon hum ji ko remplacé fii mooy darabtuhum ba tey dañ barabu nasab la ne su dee latti noonu nga ni latti darabtuha ci darabtu hind darabtu hind nga ni allati darabtuha hind zaydayni nga ni lazani darabtuhuma azzaydani ci darabtu zaydayni su fekkee taagi nga def nga bëgg a def muxbar anu billadi ba tey nga ni alladi daraba zaydayni ana lu dëgg kon taaga mu barabu rafaa la woon darabtu yow faayil la woon tuji kon barabu rafaa la ne ba tey man bu la neexee nga wacc fa yooyu jël taagi rek def ko muxbar anhu billadi nga ni nga ni alladi daraba zaydayni ana ana barabu rafa la ne ram mooy xabar loolu mooy wa axbir xabaaral billadayni wala alladina wallati muraaciyan wifaaq almuhbati waaye nag qabulu taxiirin wa taarifin lima uxbira anhu haahuna qad xutima am na nag leneen li nga xam ne moom la ñuy def muxbar anhu fii fokk mu doon lu nangu ku ko mujje bu mu mel ni yi yeyoo sadru kalaam de ismu chart ak ismu listifam yooyu dañoo yeyoo sadru kalaam loolu kon kenn du ko def moo ci bii buntu muxbar anhu billadi ndax kon nga jële ko ci cosaanam jëdoon sadrul kalaam du dëgg naka noonu xabulu taarif loo li ñuy muxbar anhu fii comme damir a koy remplacer fokk na doon lu nangu ku ko maarifaal ndax damir toujours maarifa lay doon kon nag lisim ju nanguwul ku ko maarifaal ni ki xaal ak tamis kenn du ko def muxbar anhu fii dégg nga loolu mooy xabulu taaxiirin nangu ku ko mujje wa taarifin ak ku ko maarifaal yooyu yaari atte kat xat xutima war a leef na ko hunaa ci bunt bii li ma uxbira anhu dëgg àggagulu ci loolu yow loolu xanaa bala nga koo jàng nit ba nu àgg ca ba nga ba nu ni kadal xinaa anhu bi ajnabiyin aw bi mudmarin chartun faraa ma raaw qabulu taxirin lu mel ni ayuhu ayuhum soo ne ayuhum qaama fa akrimhu léegi ayuhum moom kenn du ko mën a def kenn du ko mën a def muxbar anu billadi ndaxte soo ne alladi ida qaama fa akrimhu ayuhum daal di jël ismul istifham génnee ko sadra sadaaraam kooku kenn du ko def qabulu taaxirin lu nangu ku ko mujje fokk moom la ñu koy def ak it lu nangu ku ko maarifaal xaal ak tamyiz soo ne jaa zaydun raakiban du dëgg zaydun bu la neexee def ko muxbaru anhu billadi du dégg nga ni alladi jaa raakiban zaydun loolu mën nga ko waaye raakiban doo ko ko mën a def ndax raakiban nanguwul ko ko doo mën ni alladi jaa zaydun iyaahu raakibun ah iyaahu léegi moo moo remplacé xaal ji te iyaahu kenn du ko nakiraat te mel na iyaahu mooy xaal ji loolu la na ni qabulu taarif li ñuy muxbar anhu fii day nangu ko ko maarifaal te day nangu ku ko mujj kon lu mel ni xaal ak tamyiz kenn du ko def muxbar anhu billadi su ne ci jumla ja tànlat